asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 dalee na jàmm ci seen émission SOS santé te ñu am euh, mbégte di ci dalal euh, waa réseau POPDEV réseau population développement nekk réseau boo xam ni dañu yëngu ci lépp loo xamante ne jëm na ci wàllu euh, sensibilisation ñeel wàllu santé de la reproduction wérgu yaramu yaay ak doom ak yeneen yépp yi nga xam ne ñeel na kon pàcc boobu te ñu am mbégte di ci dalal ki nga xam ne moom mooy Lamine Tine nekk kon ki nga xam ne moom moo yor club réseau POPDEV. Euh, donc euh, club yi nekk yi tamit responsable projet FGS euh, donc di fondation pour une justice sociale naka noone mu feggoo ceeg ki nga xam ne moom mooy Aminata Faye yor projet FGS googule ca réseau POPDEV dañ leen di may rek ñu nuyoo ak mbokki auditeurs yi bu ko defee ñu soog a dugg ci waxtaan bi Lamine ñu ngi lay nuyu. voilà merci beaucoup euh, Oulaye euh, di la rafetlu ci invitation bi par rapport ak émission SOS santé bi fii ci réew Rewmi FM. Mm-hmm. di nuyu bépp euh, nit bi nga xam ne yaa ngi ñuy déglu fii ci mi FM man maa ngi tudd Lamine Tine mm-hmm. nekk responsable au niveau du réseau POPDEV en tant que le coordonnateur national des clubs POPDEV du Sénégal également le directeur de programme de POPDEV TV. et mm-hmm. le chargé de projet FGS au niveau du réseau POPDEV. voilà bu ñu ci paree kon ñu daal di jox kàddu gi tamit Aminata Faye bu ko defee moom it mu nuyoo ak mbokki auditeurs yi. waaw jërëjëf matu comme ni ko Lamine waxee rek man maa ngi rafetlu invitation bi di nuyu tamit suñu mbokk auditeurs yi man c'est Aminata Ngara Faye jeune fille leader euh, pour euh, ni koy waxee waaye suñu projet FJS fondation pour une justice sociale. voilà ñu leen di jaajëfal bu baax a baax tey pour ñi nga xam ne peut-être xamuñu lan mooy réseau population développement bu ko defee Lamine nga expliquer ñu un peu euh, en vrac réseau bi moom mooy lan exactement lan lay toppatoo. waaw réseau PopDev euh, ñu bëri ñu ngi ko gën a xamee ci réseau PopDev mais euh, sigle rek boo xam ne dafay signifier réseau jeunesse population et développement. buñ nee jeunesse nag dañuy naan ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci diggante tranche d'âge bi nga xam ne c'est de 12 euh, 14 ans ba 25 ans jëm 35 ans donc ay ndaw la yi nga xam ne ñoom dañu nekk ci benn organisation di lutter pour une euh, pour la santé de la reproduction di lutter aussi lépp li nga xam ne moom moo sonal ndaw ñi donc suñu coordonnateur national moom mooy euh, Maguette Thiandoum mu ngi ñu ngi suñu siège mi ngi nekk ci VDN bi mm. juste à côté de l'UVS donc au delà des clubs am au delà du réseau POPDEV am na ay entités yi nga xam ne dañ ko installé ci biir établissement yi pour que ñu former ay ndaw ñi nga xam ne ndaw ñoom ñooy former seeni père ñi nekk ci biir établissement yi donc euh, entité yooyu ñu ngi ko tuddee les clubs POPDEV ci établissement Dakar ak banlieue bi ñu ngi ko commencé nag di euh, tas ci région yi lu ci mel ni euh, Saint-Louis lu ci mel ni Ziguinchor ak yeneen région yi nga xam ne nous sommes en contact ak parce que dafa am antenne yi ci 14 régions yëpp. Mhm. voilà dinañ ci dellu si mais aussi ñu ñëw ci euh, parce que si ñaari présentation yi gis nañu euh, luy ñëw bis ñuy ñëwaat bu baax di projet fondation euh, pour une justice sociale FGS tey Aminata exactement mun nañu xam projet boobu lan la lan la wundu. waaw projet boobu benn projet boo xam ne réseau Siggil Jigéen ñoom ñoo ko déployé donc projet la boo xam ne dañuy jël di jeunes filles leaders maanaam ci chaque organisation donc le début c'était de former cinq euh, ONG. ONG bu ci nekk day joxe cinq euh, jeunes filles donc ces jeunes filles la dañ leen di former ci wàllum plaidoyer wàllum l'autonomisation des jeunes filles et différents euh, axes yi nga xam ne dina xale bu jigéen bi dina autonome. ba nga xam ne tous les questions qui relèvent ci xale bu jigéen bi dina ko mun a développer et que la fille devient leader donc c' était ça le but commencé woon nañ ko ci cinq euh, ONG euh, notamment réseau POPDEF comme réseau POPDEF on a choisi cinq jeunes filles et que bu ñu commencé ci loolu noonu on a fait des formations sur le comportement des jeunes filles plaidoyer et aussi euh, nu ñu koy waxee waaye comment transformer euh, farine enrichie donc différents euh, programmes la différentes activités yi nga xam ne dafa loolu ci fond projet FJH bi donc ba ñu ñu jaaxee ci loolu ba pare après deuxième phase parce que deux phases la woon première phase bi c'était de nous former deuxième phase bi c'était de ñun jeunes filles ñu wàcc sur le terrain pour former nos pères donc mm. c'était ça l'idée voilà léegi formation boobu après euh, à lan lañ bëggoon euh, pour vraiment ngeen peut-être am ko des actions concrètes yoo xam ne moom ngeen ci mëne. waaw parce que euh, au début c'était de former les jeunes fii bi ñu formé ba pare ku ci nekk da am benn. projet booy développé maanaam benn plaidoyer ñun au niveau du réseau POPDEV notre plaidoyer se portait sur le maire de Fass Colobane Gueule Tapée pour que ñu initier jeunes yi nekk foofu noonu et que ñu am l'engagement de notre leader maanaam waa UNFPA donc ñun dañu waroon a am benn budget boo xam ne 2 millions lañu waroon a am. donc on a fait nos démarches et que à la fin amoon nañ benn budget bi li ñu bëggoon am nañ ko donc jox nañu benn budget boo xam ne mun nañu permettre woon nañu ñu mener suñuy activité activités am na tamit euh, association boo xam ne ce les handicapés ñoom tamit au niveau de leur localité seen maire bi octroyé woon na leen ay oto pour handicapés yi tamit jël na en charge handicapés yi ku ci nekk boo feebaree di nga dem faju sans pour autant nga fay donc chaque ONG dafa amoon plaidoyer boo waroon a porter et final bi mooy nga atteindre sa objectif boobu noonu. Euh, sur le terrain li nga xam ne mooy quand fondation pour une justice sociale justice sociale pour que peut-être buñ ñu ko mënee tekki euh, ku ci nekk maanaam mu am tolloole loo xam ne day am ci diggante doomu aadama yi am benn certain équilibre. déjà que xam nañ ne c'est pas carrément possible mais quand même mu xaw a tane tuuti réduire les injustices sociales tey jii lan la peut-être euh, fondation bi di des pour ci côté wàllu santé surtout pour endiguer injustice sociale yooyu. waaw boo xoolee euh, projet bi ñu ngi naan FGS fondation pour une justice sociale boo xoolee tey manquement yi dafa bëri ci société bi. donc ñoom bi ñu defee formation bi ak jeune fii yi ba forme leen ñoom ci boppam dañ ne comme manquement yi dafa bëri et que ñoom ñi ngi xeex pour mën a am des budgets pour faire des activités il faut ñun aussi ñu jàppale leen pour que ñoom aussi ñu def seen activité ci loolu am na organisation yi nga xam ne formé nañ leen jàppale nañ leen ku ci nekk benn budget boo xam ne mën nga démarrer say activité ci activité de santé yooyu nag bëri na ay activités yi nga xam ne moom la moom la ñu moom la organisation bu ci nekk songoon pour mën ko def boo xoolee au niveau du réseau POPDEV y des activités de sensibilisation communication comme ay causeries yi nga xam ne def nañ ko ci différentes localités yi nga xam ne ciblé woon nañ leen am na aussi ay plaidoyer ay euh, kii nii aussi plaidoyer yi nga xam ne defoon nañ ko mu ñu ko tuddee woon ay session de jalo session de dialogue yooyu noonu c'était pour que ñun ñu mën a am avalu autorités yi nga xam ne ciblé woon nañ leen pour que ñoom aussi ñu indi benn touche ci activités yi nga xam ne def nañ ko maanaam ñu euh, pare pour jàppale ndaw ñi nga xam ne ñu ngi seen localité mm-hmm. voilà lu jëm ci wàllu santé de la reproduction tey jii ñu am benn pàcc euh, boo xam ne c'est important bu ñuy waxtaanee mooy hygiène menstruelle bu ñu ko mënee wax tey mooy peut-être comportement yi nga xam ne ku jigéen ki wax na ko am su gisee mbaax donc mu nekk cycle boo xamante ne dafa am lu mu war a adopté nu mu war a am comportement nu mu war a def yooyu donc tey loolu mooy suñu principal sujet te dama lay poser d'abord question avant ma ñëw ci Aminata en tant que homme tey lan moo la ci euh, nga. am engagement pour parler d'un tel sujet. waa ulay question bi damay dama dama koy sawar a tontu. Mm. parce que tout le temps dama daan dégg ñu bëri naan góor laa aw ma droit xam cycle menstruel ou bien aw ma droit xam la gestion de l'hygiène menstruelle. Mm. dëgg la ay góor lañ mais ñu nit am lu ñu war parce que ku ci nekk tey am nga rakk ku ci nekk am nga mag ku ci nekk am nga yaay ku ci nekk am nga papa. Mm. kon boo xoolee ñun en tant que góor jigéen moo ñu wër. donc mënuñu bañ jigéen. donc yoon la ñun góor ñi aussi ñu xam lan mooy gestion de l'hygiène menstruelle yoon la aussi nga xam lan mooy cycle menstruel. parce que ku ci nekk tey boo nekkee sa kër am nga ado boo xam ne mi ngi soog a juddu ou bien mi ngi mi dugg ci phase adolescente. donc kooku bu yàlla defee yow kese ngeen nekk si biir kër yi ñaar mu nekk si phase boobu noonu yow boo xamul dara ci notion bi doo ko mën a dimbali. Mm-hmm. donc man engagement boobu noonu. loolu moo waxtu yenn yi ou bien pour ma dem jàngi ko pour mën a dimbali ñi nga xam ne ñu ngi ko ñu ngi ko soxla. Mm-hmm. te ñu ci bëri nag dañuy jaawale naan góor laa waruma xam yenn yi. mais mm-hmm. góor moo gën war a gën a mën a xam yenn yi que jigéen parce que jigéen tout le temps dafay soxla appui ci côté boobu noonu. Mm-hmm. voilà c'est important te lii di hygiène menstruelle euh, comme ni nga wax rek tey mën nga nekk say sœur ak yooyu euh, ñu tollu ci diggante boobu nga mën leen jàppale surtout que gis nañ ne suñu famille dafa nekk ay famille yoo xam ne. Euh, léegi euh, peut-être sax tane na mais yenn sujet bëri dafay tabou donc gis nañu ay jeunes filles bëri yoo xam ne dañuy tollu ci période boobu nekk ci désarroi du ñu am ku ñu waxal euh, tey Aminata li nga xam ne mooy hygiène menstruelle tey ji en tant que jeune fii nga nekk jigéen donc directement concerné lan moo la tey aussi motivé ba nga vraiment nga bëgg a porter combat jëm ci loolu nga xam ne moom mooy hygiène menstruelle. waaw Oulimatou comme ni nga ko phase la boo xam ne képp ku jigéen danga ci toll et que première fois bi c'est pas facile donc de ce fait man je me ne voilà tey yoon la ñu wax ak suñu parents yi ba nga xam ne ñu. tabou bi nga xam ne moo amoon ci wàllum cycle menstruel bi ñu briser tabou bi parce que da ngay gis xale bu jigéen boo xam ne day toolu ci gis mbaax du xam nan lay comporté woon parce que parent bi à l'avance ñaaxu ko waxu ko exactement boo gisee lii c'est normal li nga war a comporté woo et consort dañ lay bàyyi nga dem fan la lay dalee la part ci école yi la lay dalee donc bu la dalee ci école bi te yow t'étais pas préparé donc yow da ngay tu nan laa ko mën a expliquer écarté da nga yaakaar ne lii c'est pas quelque chose de normal maintenant je me suis dit pourquoi pas parents yi ñu wax ak seeni doom ci gestion de l'hygiène menstruelle balaa ñuy toll ci phase puberté nga xam ne ci ci tollee dinañ xam yan matuwaay lañ war a mën a jëfandikoo ba nga xam ne du ñu am yenn problème yi donc loolu moom ma gën a motiver ma ne donc euh, c'est bien de mener ce combat au niveau des établissements au niveau communautaire tamit maanaam parents yi quartier ñi nga xam ne aussi amuñu l'opportunité ñuy dem ci école yi donc yoon la ñooñ tamit ñu mettre les dans le bain ba ñu xam exactement yoon comportement lañ war a mëne mhm. bu ñu tolloo ci phase boobu noonu. Euh, tey hygiène menstruelle ça veut dire que euh, hygiène moom tout le temps nit ki daf ko war a am rawatina boo tolloo ci période boobu nga xam ne moom mooy les menstrues. Euh, tey jii nii euh, yan peut-être conseil nga mën a jox xale bu jigéen boo xam ne tey jii mu ngi soog a toll ci phase boobu ci daal comportement yi mu war a am. exactement tey bu ñu waxee hygiène rek mooy set set dafa nekk loo xam ne dafa dafa ëmb lu bëri donc du set ne dañuy wax set ci kër gi rek wala set ci ni ngay solo noonu nit ci kaw ba ci suuf dafa war a set tey jii phase boobu boo ci tolloo ci nga war a gën a set donc yow xale bu jigéen bi juste li ma lay wax mooy. c'est pas quelque chose boo xam ne c'est pas naturel parce que y a des gens qui pensent que ne bu ñu gisee seen règle dañu salte wala dañu feebar wala dara def xew parce que ñaaxuñu leen waxuñu leen carrément c'est quelque chose de naturel donc yoon la tey ñu wax ñooñu noonu boo gisee sa règle da war a am yan comportement yan comportement lan laa leen di wax seen serviette war nañ ko changer 3 à quatre fois su fekkee ne seen i li bëriwul am na ñoo xam ne mun nañ ko changer sax de la de 4 fois et que war nga sol des slip yoo xam ne coton la mm-hmm. parce que dañuy gis des fois xale bu jigéen bi day échangeante ay bas di en ah, di aalante ay slip affaire yooyu noonu donc yooyu yooyu yëpp ay problème loo xam ne du wàllum set te boo nekkee ci cycle boobu noonu da nga war a toppatoo sa bopp ba nga xam ne yow war nga raxas sa loxo balaa ngaa changer sa coton. Mm-hmm. soo changer ba paree war nga kaa raxas. et aussi war nga utiliser coton yu baax am na ñoo xam ne coton yi ñuy utiliser réutilisable la. Mm-hmm. yooyu aussi dafa am méthode bu ñu ko war a toppatoowee. Mm-hmm. donc yooyu war nañ koo di que nettoyer nañ lañ koy fóotee war nañu utiliser ndox bu tàng. et war nañ ko di weer foo xam ne ci naaj bi la comme de ko suñu slip yi aussi na da nga toll ci phase boobu noonu nga gis say règle slip bi nga utiliser fóot nga ko ba pare nga dem denc ko foo xam ne amul naaj. Mhm, te loolu ci humidité. exactement te loolu du rey microbe yi. Mhm. donc war nañ ko teg foo xam ne ci naaj bi la. bu fekkee réutilisable yi aussi dafa am méthode bu ñu ko war a toppatoo wee boobu moo gën a laaj set parce que boobu noonu. da nga koy def utiliser ko utiliser ko waat mais da nga ko war a di fóotee ak ndox bu sedd ndox bu tàng autant pour moi ndox bu sedd pas tàng tàng non sedd et que war nga utiliser gel yi ñuy wax tamit gel de bain yi des fois da ngay ci phase bi nga ne damay utiliser gel de bain alors que des fois y a des gels de bain yoo xam ne baaxul. Mm-hmm. donc de préférence dañ ne nga utiliser ndox ndox bu set ngay raxase sa kanam. Mm-hmm. donc yooyu yëpp soo sont des méthodes yi nga xam ne xale bu jigéen bi bu tolloo ci phase war na ko adopter. Mm-hmm. et éviter les mauvaises donc su ma nee mauvaise pratique yi mooy jël sa serviette utiliser ko pendant toute une ne benn serviette wala nga jël sa slip photo ko bu baax weeroo ko ci naaj bi tout ça ce sont des mauvaises pratiques mm-hmm. te s'ensuit après ay infection ak yeneen yoo xam ne exactement exactement parce que y infection yi bëri na ci bëri na ci lool parce que des fois da ngay gis nit mu am infection ne xamul sax ni am na infection parce mm-hmm. que xamul exactement lan moo ko ko jox donc bu ñu euh, éviter ces mauvaises pratiques dina la permettre doo am infection yooyu noonu yëpp que le fait que aussi ñu éviter aussi euh, nu ñu koy waxee waaye les mauvaises information mm-hmm. parce que ya y plusieurs mythes yoo xam ne dafa loru ci wàllum gestion de l'hygiène menstruelle maanaam mm-hmm. période bi ñu gis suñuy règle da ngay dégg des fois benn xale ne la ah man de sama yaay nee na ma su ma gisee samay règle li yëg li yëg li alors que tout ça ce sont des mauvaises informations bi comme yan genre information par exemple waa comme yan da ngay dégg ñu ne la soo gisee say règle boo toogee ci kaw da ngay ëmb mm-hmm. am na ñoo xam ne dañ lay naan da ngay jël ànd nga def compte benn ñaar ñett juróom nga am loo wax yooyu yëpp ce sont des choses yoo xam ne da lay prévenir pour doo ëmb wala affaire yooyu alors que ce sont des mauvaises tey xale bu jigéen bi mu ngi tollu ci phase puberté commencé na gis règle donc elle est apte procréer. am mm-hmm. doom donc pour yow peut-être dañu war a parce que ñun euh, boo gisee suñu maam yi di waxee noonu c'est parce que bëgg nañ la informer ne la ah moytul góor moytul li moytul le mais duñ la ko mën a wax euh, ouvertement mais dañ koy jaaree ci ay yeneen méthode beaucoup plus subtile pour mun la ko donc yow ci prône à ce tey parent yi ñu dem directement au but wax ak seen doom yi def carte sur exactement parce que avant peut suñu maam yi amoon nañ benn comportement bu ñu amoon et que ñoom boo leen waxoon loolu dinañ xam exactement lan la ñuy def mais tey jii ak jumtukaay yi am nii et xam nañ ni xale yi léegi dañoo muus macha allah donc tey soo jëlee xale bi nga jox ko mauvaise information boobu noonu nga ne ko soo toogee ci kaw la rigóor da ngay ëmb xale bu jigéen bi mun na dem defi ko feneen te pourtant bu ñëwee ne la carrément tooguma ci kaw lalu xale bu góor damaa taxaw wala dara su ëmbee laa yow te fautif parce que waxu ko information bi nga xam ne moom la soxla woon mm. donc il est yi ñu briser ce tabou su fekkee ne lii moo am ñu ne la les choses telles qu'elles boo amee rapport ak góor soo nekkee sa phase puberté tout ça da ngay ëbb lii moo la ciy dal mm. su boobaa la personne est responsable de ses actes wax nga ko li nga xam ne moom la nga ko war a wax bonne information bi donc bu demee bu ëmbee donc la la responsabilité dinañ ne parent bi am na responsabilité bi c'est un peu minime par rapport ak nit ki nga xam ne moo jël l'engagement parce que jox nga ko les bonnes informations. Mm, d'accord tey Lamine ñu gis ne comme ni ko Aminata di waxee tey parent yi dafa am rôle bu am solo bu nuy jouer ci ci côté boobu euh, te la plupart du temps comme lu ñu wax tabu yi ak tam kersa beeg rus beeg yooyu mooy mooy lu ci bëri. waaw euh, Oulaye damay revenir un peu ci euh, Aminata li nga xam ne jot na ko wax parce que boo xoolee tey bu ñu nee la gestion de l'hygiène menstruelle euh, ñun am nañ ci part de responsabilité parent yi am nañ ci part de responsabilité mais boo xoolee tey dafa am li ñuy naan avant pendant et après te boo xoolee Aminata li mu jot a développé pendant la mm-hmm. donc bu ñu jëlee avant bi ku jigéen ki am na nu mu war a comporté woo yaay ji am na nu mu ko war a jàppalee ba tey li nga xam ne ci euh, menstrué la du ci sonn mm. parce que buñ ne avant bi des fois dafay am changement yi nga xam ne day am donc ku jigéen ki war na préparer ne xam ne tel jour war na gis règle am mm-hmm. donc ci avant boobu noonu ci lay commencé gis ay ay ay ay seins yu gonflé mm-hmm. ci lay commencé am ay maux de ventre donc foofu parent mën na ko des fois li ñenn ñi di naan boo ko joxee ndox bu tàng mu naan dina bàyyi et tout ça mm-hmm. dina préparer aussi tamit pour denc serviette parce que xamoo fan la lay bettee di nga jënd denc ko fooy dem nga yóbbaale ko donc loolu yëpp avant la donc bu ñu nee pendant ni comme ni mu ko waxee jot na expliquer nu mu war a def comportement yi ak yooyu mais boo xoolee tamit. mauvaise pratique yooyu noonu ñuy wax tout le temps avant la woon parce que en période euh, règle bi maanaam jour bi ngay gis sa règle commencé génnee deret mën nañ ne foofu ëmb mënu cee am. Mm-hmm. donc parce que foofu saleté bi day wàcc. Mm-hmm. donc euh, tabou yi ci parents yi doon wax boo xoolee avant la woon. Mm-hmm. parce que fécondation nekk période boobu noonu moo tax ñu naan avant les règles sa yaram day day day pare pour def rapport sexuel. donc sa yaram day laaj. donc période boobu boo ci nekkee di def rapport sexuel loolu tax maam daan naan. booy waaj a gis sa règle boo toogee ci kaw la bu góor da ëmb. Mm-hmm. donc loolu maam yi dañu doon ñaax pour ba pour ñu bañ a am des rapports sexuels. Mm-hmm. donc foofu noonu il faut briser le tabou ne leen carrément période bi sa yaram dafay laaj góor. Mm-hmm. donc ci loolu noonu boo demee jege boo demee tëdd góor pas nga toog ci kaw lalu góor parce que toog ci kaw lalu góor ëmb aussi loolu mm. probabilité la. Mm. donc loolu noonu il faut foofu. toog ci lalu góor en fait de cette manière imagée nii ko waxee. mais xam nañ ne exact ñoom xam nañ exactement qu'est-ce qu'il voulait dire dañ ko wax peut-être ni pour rafetal. Mm. mais quand même on sait que ne doo ñëw toog ci kaw lal bi rek ëmb. évidemment évidemment mais nag nekk ci phase bi nga xam Euh, tollootuñu ci euh, tabu. Mhm. wax direct lañ toll. Mhm. parce que boo xoolee te quatre-vingt-dix pour cent jeunes yi fi nekk. Mhm. xam nañ luy sexualité. boo leen ko waxul dem nañ ci internet tappe ko xool ba mooy lan. te le plus souvent boo leen koy nëbb ñoom dañuy bëgg a découverte. dañ ciy dem en fond. nëbb bi day gën a attiser seen curiosité. voilà nëbb bi da gën a attiser parce que tey boo ko nee joxuma la téléphone ou bu demee école am na accès am na accès internet am na lépp donc day gën a xool curiosité mhm. comme li ma doon wax sànq rek pendant la avant et après. Mhm. donc wax nañ ci euh, avant bi pendant bi mais après bi aussi itam dafa am solo. Mhm. parce que le plus souvent tey ku jigéen gi tey set dëgg la mun nga ko set période bi ngay gis sa menstrues yi mais après aussi tamit am na noo war a comporter woo. parce boo utiliser sa serviette bu fekkee jetable loolu am na tey noo ko war a nëbbee tey ba sànni ko parce que le plus souvent maam dañ daan naan góor warul gis sa mbaax. bu ko gisee doo am doom. Mhm. donc yooyu aussi war nañ ci bàyyi xel nga gis am noo koy taqee sànni ko ak fu léebu sûr. nga pare ci loolu aussi tamit am na aussi tamit yow liñ naan sangu set. Mhm. parce que tey pare naa sama menstrué rek waaw mun man maa ngi dem yaa ngi war a julli yaa ngi war a rencontrer des personnes. loolu muy gën a ñëw côté religieux bi. Mhm. aussi laaj na aussi nga sangu set. Mhm. te le plus souvent damay gis xale jigéen yi naan su ma paree mbaax rek damay ut saabu commencé ko raxas ak saabu ak yooyu te loolu xamuñu ne day indi infection. lu euh, dëgg la set baax na mais set bu ëpp tamit day indi. gàllankoor surtout ci parti yooyu parti. yooyu noonu dafa nekk partie sensible te lu ci bëri pH bi ci ne. Euh, moom dana ko setal. donc ndox rek doy na ci. évidemment ndox kese doy na moo moo tax tout le temps ñuy naan nit ñi euh, set dara gënul nga dem utiliser ndox bu sell sangu set dara gënul loolu amul dara lu koy remplacer. Mm-hmm. dëgg la saabu yeeg yooyu noonu baax na mais dalay gaañ après. moo mm-hmm. ci abusé da nga wax sànq lu lu lu important moom mooy avant bi. avant bi je pense que sax euh, moom mooy le gros du loo parce que avant bi yow mooy déjà que ne war nga xam sa cycle menstruel war nga xam ñaata jour nga war a gisee rek war nga xam sa euh, cycle ñaata jour la loolu yëpp c'est important. waaw loolu c'est important parce que ci loolu noonu ngay déterminer yow en personne liy daw sa yaram. Mm. parce que mën naa ni comme dañ ne cycle la loo xam ne chaque mois day ñëw si période boobu. ñu si bëri nag ñu ngi am euh, problème pour calculer seen cycle ñu ci bëri ñu am problème pour xam seen cycle ñaata la parce que cycle dafa am deux parties dafa am yoo xam ne c'est régulier am yoo xam ne c'est irrégulier loolu noonu nag day dépendre ci nit ki parce que mën nga am cycle bu régulier ba benn période mu irrégulier parce que danga am stress ou bien da nga def des activités yi nga xam ne méngoowul ak sa yaram. Mhm. donc loolu mun na ko def mu bañ a irrégulier mu bañ a mhm. donc ci kaw loolu noonu aussi tamit ci nga mën a xam yow aussi sa cycle ñaata temps lay sa menstrues ñaata temps lay doon. Mhm. maanaam ndax 4 jours la wala 3 jours la wala cinq jours la. ci loolu noonu mën a déterminer le nombre de serviettes ngay préparer pour. Euh, carrément jour menstrué yi jour bi ngay mm-hmm. génnee deret yi mm-hmm. donc loolu noonu c'est important nit ki xam ko parce que le plus souvent propre yi ñuy rencontre sur le terrain jeune fille loolu la ñuy wax mm-hmm. man xaw ma sama menstrué ñaata la mënu ma ko calculer donc calcul boobu noonu da nga koy commencer ci premier jour bi nga gisee sa règle ba ba beneen jour bi nga koy gisaat ci beneen mois bi. donc loolu la ñuy woowee cycle période boobu maanaam le premier bi nga ko gis ba la première bi dellu si waat. Mm-hmm. maintenant nag cycle est différent de menstrues menstrues yi mooy re maanaam période bi ngay génnee dret. jour yi waaw mm-hmm. donc loolu. jour de saignement yi yi loolu mën nga ko compter ndax xam 3 jours nga am wala 4 jours wala 5 jours te loolu aussi tamit boo kiiwee. bu ñu nee deret bu génnee ci nit war nañ ko remplacer. Mm-hmm. le plus souvent médecins yi ou bien ñenn yi dañuy à ce que jeunes filles di jël aussi fer. moo tax des fois ñeneen ñaa dama am anémie wala yow donc li génn remplacé woo ko donc le plus foofu war nañ si bàyyi xel aussi tamit. Mhm. c'est important donc Aminata tey jii euh, li euh, Lamine wax euh, mu nekk kon loo xam ne dafa am solo moom mooy wàllu wàllub cycle menstruel parce que comme ni mu ko waxee am na tey ñoo xam ne mënuñu calculer seeni règles daf leen di bett wala ñu war a xëy dem ba ci yoon bi mu mu mu dab leen ñu naan dencoo serviette ak may ma serviette donc yooyu mu nekk loo xam ne mbette la te nit ki surtout jigéen war nga xam sa yaram ba nga xam ne yooyu du la bett. waaw loolu dëgg la ni ko Lamine waxee yaakaar naa ne lamin wax na lépp tey en tant que jigéen comme avant bi muy wax noonu rek maanaam phase puberté bi et que yow yaa ngi gis ay changement changement yi lan la bu fekkee xale bu koy soog a gis parce que bu fekkee yaa ngi ko di gis sax là tu peux te préparer mais xale bu koy soog a gis dina am ay changement dina gis ween yi dina ibbeeku dina ange di ibbeeku donc différents euh, étapes la yoo xam ne xale bu jigéen bi dina ko sentir ci yaramam avant ko muy gis règlam donc yow parent bi gis nga changement yooyu noonu te xam nga ne lii lay waaj a gis si nga jël xale bi nga ne ko ah yaa ngi waaj a gis say règle soo gisee say règle yi comportement nga war a am donc war nga attentif ba xale bi moment ba muy gis règlam yow nga tu sois présent. tu peux pas nag être présent tout le temps na ko gisee école mun na ko gisee feneen mais tey jii bu ko gisee nga ne ko tey jii nga gis say règle donc yow war nga wutal xale bi serviette yoo xam ne daf koy dugal ci saag bi wala ko xam ne ci këram la nekk mu koy changer constamment su fekkee aussi dafa war a génn gis na ko pour une première fois mois bi beneen mois bi. xale bi eh, doit être préparé ci saagam bu fekkee ne dafay jàngi war na yor serviette yoo xam ne ba fu mu ko ti dalee dina mun a changé wu mm-hmm. pas ngay dem di u àbbu fële wala ngay gis ay eh, jël ay morceau naan da koy utiliser alors que yooyu mun na la indi ay infection donc nit ku nekk war na xam cycle moment bi nga xam ne moom lay commencé moment bi muy pare tout saaba ba mu mun laa permettre yow tu sois près ba bu la bettee rek di nga xam ko te comporter. Mm-hmm. wax loo xam ne lu lu lu am solo la mooy euh, morceau yi ngay wax parce que serviette yi peut-être ci jamono yi la la ñu xam peut-être serviette hygiénique garniture yeeg yooyu mais bu njëkkoon morceau yooyu moom moo amoon te pourtant da nga naan gi suñu maam yeeg yooyu sax ñoom sax ñoom ñoo ci ëppoon sutura dina nit ki dina doon am règle ba pare suñu maam yi suñu yaay doo xam ne sax kii nii mu ngi doon nekk ci période mbaax parce que daf ci doon ànd ak sutura goo xam ne vraiment affaire da doon ànd ak cet ak lépp léegi sax ngay gis peut-être ay serfe di train nekk yooyu noonu donc tey morceau yooyu aussi mu nekk bu fekkente ne tey jii ñi nga xam ne peut parce que du ñëpp am moyen pour jënd ay serviette ak yooyu bien que léegi yomb na mais foofu aussi war nañ fa mën a sensibiliser ci morceau yooyu exactement pour loolu sax damay euh, passé benn coucou waa santé mobile parce que ñu ngi def liggéey bu rafet ci wàllum yooyu noonu maanaam mooy morceau yooyu noonu. actuellement euh, am na serviette yi nga xam ne tout le temps yaa ngi koy gis ci mbedd bi. Mm-hmm. mooy yi nga xam ne coton yi la. des fois ci naaj bi dañ koy exposé ci naaj bi ba mu yàgg yow nga dem jënd ko mën na la indi sax yenn infection mais par contre serviette réutilisable yooyu noonu dëgg la suñu maam yi bañ ko doon utiliser avant daanoo ko gis dafa àndoon ak sutura te doo doon dégg yenn problème yii nii donc euh, loolu dafa amoon lu ko waral maanaam set ak sutura donc loolu tamit war nañ ko indi indiwaat suñu jamono jii nii et dëgg la ñëpp amuñu moyen pour utiliser serviettes yi jetables yi mais serviette Euh, réutilisable yi buñ ko utiliser war nañ ko di nettoyer constamment donc yow boo ko utiliser war nga utiliser ndox bu tàng moom nga ko war a nettoyer te soo ko nettoyer ba pare war nga ko weer foo xam ne naaj bi da ci am euh, yoon pour que mu rey microbe yooyu noonu donc yooyu noonu yëpp euh, ce soo des méthodes yi nga xam ne dina la permettre yow yenn infection yi doo ko am sooy utiliser serviette réutilisable yooyu noonu mm-hmm. donc yaakaar naa ne dëgg la que war nañu briser les tabous mais am na ci aada yoo xam ne dañ ko war a maintenir. Mhm. parce que munoo wax ne tey jii. comme ni ñu koy waxee ñun actuellement génération voyez moi la mhm. donc da ngay gis say règles dëkk bi yëpp xam ne yaa ngi gis say règles mhm. donc ni ngay comporté woo ni ngay doxee da nga koy wax ñëpp alors que ne suñu maam yi ñu def noonu donc sutura boobu noonu man je me dis que ne sutura boobu dafa war a ñëwaat. donc boo gisee sa règle même bu fekkee jetable ngay utiliser war nga ko utiliser denc ko ba dem sànni ko te kenn du xam ne yaa ngi gis sa mm-hmm. donc am na yoo xam ne war nañ ko éviter maanaam voyez moi mm-hmm. loolu c'est important Lamine euh, côté sutura bi tamit euh, côté sutura bi dafa manqué trop léegi ci jeune génération bi. Mm-hmm. waaw c'est vrai de parce que côté sutura bi manqué na ci euh, jeune génération bi parce que actuellement fi ñu toll la parce que nee nañ. jëmmi jamono la non diineeg jamono. Mm-hmm. ou bien ñu ne jamono ji fu mu toll la. Mm-hmm. parce boo xoolee tey auparavant ñun li ñu li ñu mun naa ne li ma fekkee ci sutura suñu maam yi daan ñu ko ou bien suñu yaay daan ñu ko wax présentement amul parce que léegi léegi fàng la lépp mm-hmm. nekk. boo xoolee internet bi lépp fàng la da ngay gis koo xam ne dugg si douche di changé wu sax di ko def sa internet donc sutura bi manqué na foofu trop donc foofu war nañ ci mën a conscientiser waat jeunes yi parce que tey lépp lu ne fàng tey tey du doon sa arrangement parce que ëllëg danga war a doon kenn ci àdduna bi. li may tout le temps di wax jeunes yi nga xam ne dama leen di renforcer dama leen ni sa image yow yaa ko mën a defaral sa bopp kenn mënu la ko defaral. parce que tey boo ko jaayee si internet bi. suba bu ñu la waree fal nga doon directeur de banque ou bien nga war nga doon dara. ci foofu la ñuy dem xool source boobu. ndax xam nga sa image baax na ou pas. donc foofu jeunes yi war nañ ci bàyyi xel bu baax sutura bi mën a dellu siwaat foofu pour ñu mën euh, pour ñu mën a doon keneen kenn ëllëg incha allah. Euh, tey ñuy dalal rek euh, waa réseau population développement ci seen émission SOS santé may fàttali ni tey ñu ngi ci ànd ak ki nga xam ne moom mooy Lamine nekk responsable des clubs bu réseau bi nekk i tamit responsable projet bi di fondation pour une justice sociale ñu feggoo ceeg Aminata Faye moom itamit kon jeune fille leader ci boobule euh, réseau nekk euh, ki nga xam ne moom moo kon yor euh, projet boobu nga xam ne moom mooy FDS ba tey ci réseau POPDEF tey ñuy waxtaanee lii di hygiène menstruelle donc tey ci sànq Aminata Lamine mu ngi wax ci li nga xam ne moom mooy serviette hygiénique yi nga xam ne léegi dafa bëri tellement bëri na bëri goo xamante ne daanaka marque bu ne am na ci. te da ngay gis comme ni ko Aminata doon waxee sànq ñu teg ko ci naaj bi dans des conditions yoo xamante ne vraiment yow xamoo daal nga ñëw jënd ko parce que ça coûte 500 wala ça coûte 200 wala yooyu fekk na yaa ngi gaañ sa bopp. waaw ba li may wax tout le temps nee naa leen gis ngeen ko butiku butiku mbedd. taxul nit wér dëgg la des fois nag dina dimbali mais taxul nit wér. Mm-hmm. tey bu soo fekkee da nga soxla loo xam ne sa confortable ou bien loo xam ne yow leer na li baax na soit boutique ba nga ci boutique bi nga xam ne foofu euh, am na euh, benn benn benn humidité. Mm-hmm. ou bien pharmacie bi nga xam ne moo la gën a jegeel parce que tey lu ñu weer ci naaj bi tey mën naa ne naaj bi day bu ko bu ko bu ci dalee. Mm-hmm. Euh, li ko li nekkoon ci biir di protéger. mun na dee. Mhm. kon da ngay xoolee sa bopp rek tey boo génnee si naaj bi tey naaj bi boo la jàppee li da ngay ñax ou bien da yoon yoo xam ne koy génne sa yaram. Mhm. donc produit yi aussi tamit noonu la mel. donc bu ñu demee si euh, côté kii yi mën naa ne tey bu ñu sañoon tey yi nga xam ne jigéen ñi moom la ñuy utiliser pour les parties intérieures. Mhm. ñu koy ñu koy joxe si biir établissement yi ou bien ñu koy denc ci lieux yi nga xam ne. foofu c' est protégé. Mhm. donc côté boobu noonu bon peut-être appel ñu def appel ci état bi ñu dimbali ñu ci côté boobu. Mhm. parce que lu yomb aussi tamit mën nañ ne baaxul. Mhm. parce que da ngay gis tey ay préservatifs ak yooyu dañ koy séddale euh, di ko euh, mettre à la disposition des jeunes mais tey pourquoi pas préserver kii euh, service hygiénique ñu teg ko à la disposition des jeunes filles. boo xoolee ñun suñu plaidoyer sax ci loolu lañu gën a accès wu. pour que ci biir établissement yi certes des fois am na école yoo xam ne danañ am coin santé. mais foofu du am li nga xam ne tey mooy dimbali jigéen ñi parce que boo demee ci coin santé ou bien euh, bon je sais pas fàtte naa nu ñu koy tuddee ci école yi. Mm-hmm. mooy euh, je sais pas ndax. infirmerie bi waaw. boo demee ci infirmerie bi ay paracétamol nga fay fekk yooyu noonu mais pourquoi pas ñu fay def garab yi nga xam ne tey jigéen bu gisee mbaaxam ou bien muy avant muy gis mbaaxam. dina ko soxla. ak ay serviettes hygiéniques yi nga xam ne tey képp ku nekk ci biir école bi dina ci mën a am accès gratuitement. Mhm. donc yoon la comme ni ñuy distribuer préservatif yeeg yooyu gratuitement ñoom aussi tamit ñu dimbali leen ci côté boobu parce que tey adduna bi ñoom la aussi. Mhm. dëgg la ñun góor ñi ñi ngi ci mais tey adduna bi mën nañu jigéen ñi la. Mhm. parce que ñun jigéen ñi bu ñu existé woon ñun du ñu existé. donc vice versa donc ñun ñu jàppale ci côté boobu ñoom it war nañ leen dimbali ci côté boobu. Mhm. donc suñu plaidoyer ci côté boobu noonu ci loolu lañ koy gën a accès wu. Mhm. établissement yi am accès ci serviette hygiénique yi gratuitement ak ay médicaments yi nga xam ne seen avant règle yi dinañ ko soxla ñoom. Mhm. c' est important Aminata loolu euh, donc tey en tant que jeune fille euh, ñu gis ne. c'est pas trop ça ci yenn peut-être couche de la société des fois pour nga am les trois normes ndekki añ reer dafay difficile donc sa weer ñëw nga war a jënd euh, sa euh, yi nga xam ne moom nga war a soxla ay serviettes hygiéniques yaa ngi wax sànq da nga war a utiliser quatre à cinq cotons par jour euh, pour que vraiment nga mën a respecter une certaine hygiène loolu moom ça fait fekk sa cycle di jeex moom sa say menstru yi bu dee 4 jours 5 jours mën na dem ba 3 paquets wala yooyu te loolu dafay compliqué parfois ci ci ñenn ñi. waaw dafay compliqué trop parce que <clears throat> tey jii bu ñu ko jëlee sama exemple man je peux utiliser deux paquets. Mm-hmm. donc bu fekkee ne yow da nga nekk nit koo xam ne li ngay euh, saigner dafa bëri tu peux utiliser deux à trois paquets. Mm-hmm. donc tey ak euh, situation bi ni mu demee nga xam ne parents yu bëri seen loxo jotul seen ginnaaw et que nga am ñaata doom cinq ba six doom ñëpp nekk jigéen ñëpp war a gis seen reg ku ci nekk war a jënd coton donc c'est très difficile. Mm-hmm. c'est pourquoi ni ko Lamine waxee ñuy mener un plaidoyer au niveau des. Euh, autorités pour que établissement yi ñu mun leen a octroyer des serviettes hygiéniques parce que y a des besoins parce que ñun yàgg nañu def ay causeries au niveau des établissements dans les quartiers ku ci nekk yan besoin la ñuy wax ñu am des serviettes au niveau des établissements ñu am l'accès à l'eau potable donc yooyu yëpp ce sont des plaidoyers yi nga xam ne moom la ñuy mener pour que nit ki ci nekk nga xam ne yow sa loxo jotu sa gannaaw mais boo tolloo ci loolu tu te sens à l'aise bu fekkee ne yaa ngi ci école bi saa yoo soxlaa serviette boo demee di nga ko am su fekkee yaa ngi ci koñ yi tamit quartier yi comme ni nga ko waxee noonu ñuy distribuer préservatif yi pourquoi pas distribuer les serviettes hygiéniques et aussi recourir aussi aux serviettes réutilisables parce que am na localité yoo xam ne amuñu l'accès aux serviettes yi nga xam ne dañ koy jetable la. tey booy wax serviette euh, réutilisable yan ngay def allusion morceau yi yu njëkk yi wala. non dafa am serviette yoo xam ne dañ ko conçu comme serviette yu ñuy utiliser mais c'est réutilisable dafa am coton ci biir. donc tout est coton mais. loolu ñu bëri xamuñu ko donc c'est important ñu def ci mettre l'accent exact exactement euh, parce que yooyu noonu d'habitude ñu ko xam bëriwul même à l'étranger actuellement ñu ngi recourir loolu noonu parce que des fois damay. Euh, def des recherches sur le net mais même euh, YouTube je vois des vidéos des jeunes filles des euh, occidentaux yi nga xam ne ñu ngi utiliser serviette yooyu noonu di ñu wax pourquoi pas ñu utiliser serviette yooyu noonu. Mm. donc tey jii euh, serviette yooyu bu ñu ko joxee ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw serviette yooyu mën na ko utiliser à maintes reprises donc deux rek soo ko ci amee mun nga ko utiliser à maintes reprises mais dafa laaj set. parce que ni ñu koy toppatoowee moo gën a métti yee parce que yee da nga koy utiliser après nan nga koy def mun nga ko euh, dugal ci mbuus nga takk ko sànni ko mais par contre yee ne danga ko war a fóot. loo koy fóotee ndox bu ceeb da nga ko war a fóotee te boo ko fóotee pare nga defaat ci eau de javel tout pour rey microbe bi soo ko fóotee pare danga ko war a def ci naaj. te boo ko defee ci naaj ba pare. tout temps loxo dafa war a set donc soo ko weeree pare soo ko jëlee aussi da war a jël serviette bi am benn sachet boo xam ne ci nga ko ciy def pour nga denc ko ci pour ce cycle prochain. donc ni koy dégg loolu quand même c'est assez difficile. pour exactement te même bu fekkee localité yi nga xam ne aussi amuñu ndox c'est pas facile. donc c'est un problème. tey bu ndox mu tàng war a tàngal ndox ak yooyu. exactement loolu yëpp problème la donc boobu moo gën a laaj toppatoo. Mm. c'est pourquoi suñu plaidoyer ñu koy mëne ci service jetable yi pour que ñëpp am ci accès muy localité yu sori ak yu jege yëpp établissement yeeg console pour que ñëpp am ci accès. Mm-hmm. tey jii nii Lamine comme ni ko Aminata waxee service réutilisable yooyu noonu nekk na lu am solo lu baax la mais. ak suñu réalité ñun suñu euh, ñun suñu configuration société dafay difficile parce que déjà accès à l'eau bi comme ni mu ko waxee nga war a tàggal ndox euh, eau de javel ak yu demee noonu te xam nañ ne bon ñu bëri dañuy xaw a taayal tuuti donc côté boobu quand day fastidieux un peu. waaw euh, côté boobu noonu c'est vrai que Aminata wax na ci mais man vraiment pour dire vrai man. jot pour serviette yi nga xam ne jetable yi la. Mhm. parce que tey boo xoolee tey euh, localité yi nga xam ne amuñu accès à l'eau ou bien amuñu accès à l'énergie ou bien fu ñu mën a tàngalee ndox. Mhm. loolu day metti ci ñoom. Mhm. en plus au la de tout ça mën nañ ni di nga defaat beneen sensibilisation parce que tey sénégalais am na ñu jàng am na ñu jàngul te boo xoolee tey ñu ci bëri tey ay illettrés lañ. ñooñu pour nga wax leen nii par vidéo ou bien ou bien nga expliquer en français day metti donc il faut wàccaat sur le terrain. jàngalaat leen nu ñuy setee ak servet yooyu noonu donc loolu noonu mën naa ni peut-être au fur et ñuy dem dina mën a nekk fii mais pour l'instant man j'appelle entreprise yi nga xam ne ñoom ñooy defar servet yi serviette jetable yi ñu ñëw jàpp ci projet bi mën a am xale jigéen ñi mën a am euh, servet yi gratuitement su fekkee sax état bi day def contribution ci loolu pour pour que ñëpp mën a am ci accès ci lii nii parce que dëgg la tey Dakar neex na nga wàccee ko fi mais Dakar kese du Sénégal. Mm-hmm. parce que am na dëkk yoo xam ne tey ñoo gën a sori te amuñu accès ci boo xoolee le plus souvent ñoom mën nañ ni morceau yi la ñuy utiliser. Mm-hmm. donc morceau yi peut-être aussi maam yi buñ buñ ñu gën a jàppalee ñu nit ñu gën leen sensibiliser ci morso yi ba keroog ñoom ñuy am accès. ci euh, serviette yi nga xam ne jetable yi la. Mm-hmm. Euh, tey ci euh, plaidoyer bi est-ce que jéem ngeen peut-être. enfin xam naa sax peut-être bokk na ci seen activité mais est-ce que jotagum ngeen approcher les entreprises ñi fiy fabriquer serviette ak yooyu pour euh, ci seen. mbëbët yi ngeen ci am bi comme euh, par phase la. Mm-hmm. première phase moo nekkoon phase de formation jeunes filles mm-hmm. pour que jeunes filles yi a wàcc sur le terrain def seen activité pour deuxième phase bi. Mm-hmm. peut ñun suñuy axe mën nañu xalaat ci dernière phase yi dem côtoyer entreprise yi nga xam ne ñoom ñooy fabriquer euh, serviette hygiénique mais pour l'instant ci phase sensibilisation bi lañ nekk maanaam causerie plaidoyer yi pour que ñu am par exemple ci établissement yi. ñoo am espace yi nga xam ne c'est dédié aux jeunes filles pour que ñoom ñoo uniquement pour ñoom ñi gis seen mbaax la ñoom ñoo fay dugg parce que tey boo duggee ci établissement yi douze jigéen yi moo fi am douze góor ñi. Mm-hmm. boo xoolee douze yi salte na salte boo xam ne des fois jigéen dafa mën a dem di changer ou bien jigéen dafa mën a dem di sukk di saw. Mm-hmm. donc ci loolu noonu la ñuy gën a def plaidoyer actuellement pour ko ndox mi am accès foofu noonu. pour que ñoom aussi seen infirmerie yi mën a am yenn produits yi nga xam ne jigéen dinañ ko soxla léegi nag peut-être ñun suñu dernière phase dinañ gën a mën a jéem a côtoyer entreprise yi pour que ñoom aussi ñu ñoo jàpp ci combat bi parce que sans ñoom aussi ñun duñ mën a dem parce que ñoom ñooy fabriquer te ñoom xaalis la ut mm-hmm. te certes ñun ñun am nañ amuñu xaalis mais ñu ngi jéem a def li nga xam ne moom mooy dimbali jigéen ñi mm-hmm. voilà lu jëm ci euh, côté menstru yi euh, après bi Euh, pas avant après bi sax pendant bi ak avant bi pour certaines dañuy gis ne Aminata dafa am ñoom dañu am ay règles douloureuses donc loo tam daf si bokk te euh, parfois loolu dafa leen di handicapé ci seen wàllub jàng ak yooyu am na ñoo xam ne bu leen dalee euh, dañuy hospitaliser sax parce que dootuñu mën a vraiment tenir ndax ndax ay douleur tey jii garab yi aussi c'est important wax nga ko léegi Lamine pour que établissement yi mun cee euh, vraiment taxaw euh, est-ce que tam aussi tey duñu peut-être euh, parce que gis nañ ne am na tey ay ñun suñuy garab yoo xam ne ay suñuy plante ak genre yoo xam ne ay ay méthodes yoo xam ne daal maam yi dañ la koy diggal naa defal yi defal li pour vraiment mën a fagaru ci douleur yooyu noonu. waaw Oulimata dëgg la parce que euh, tey jii euh, xale bu jigéen bu nekk ak euh, nu muy gisee ay règles donc am na ñoo xam ne seen règle dafa métti de telle sot que yaa ngi koy wax ne dañuy hospitaliser tout ça donc am na ay médicaments yoo xam ne nit mun na ko jël am na aussi suñu maam yi médicaments yi nga xam ne daan ñu naan boo defee lii parce que d'habitude dañ lay naan su règle yi soo naanee lu tàng daf koy diminuer. donc euh, vrai la war nañu utiliser ces méthodes yi nga xam ne suñu maam yi daan nañu utiliser mais man je suis plutôt à ce que ñu utiliser médecine bi mm-hmm. donc ces médicaments yi nga xam ne mun nga ko utiliser boo gis say règles parce que des fois am na ñoo xam ne aussi duñu am benn douleur mais par contre avant ñu koy gis y a des signes quel genre de signe am na ñoom dañuy am bouton mm-hmm. am na ñoo xam ne seen bopp dafay metti donc seen bopp day metti avant ñu koy gis bu ñu ko gisee après tamit seen bopp dafay metti donc ça dépend des personne donc war nañ daal euh, médicament yooyu noonu ngay wax war nañ ko gën a def ci infirmière yi ba nga xam ne élève bi bu gisee règle bi wala nit bu gisee règle douleur yooyu noonu bu ko amee mu mun a utiliser am l'accès ci médicament yooyu noonu ba nga xam ne dina ko mun a jël ba du koy yàq dara te aussi damay wax ci wàllum euh, absence boobu noonu tey jii da nga gis xale bu jigéen day gis règle am rus na ñëw jàngi si parce que mi ngi yaakaar ne su see voilà dina classe élèves yi dinañ xam ne mi ngi gis ay règle mais loolu dafay impacter ci éducation am parce que durant bi ngay toog sa kër 5 à 6 jours bi ngay toog sa kër am na gens yoo xam ne dañ ko gis ba une semaine donc durant tout ce temps ngay toog sa kër sa morom yi ñu ngi jàng donc ñu ngi avancer yow tu es en retard après soo paree soo ñëwee est-ce que professeur yooyu noonu dinañ jël élève bi ñu tenir compte ci loolu. il faut aussi ñuy voir situation boobu noonu ñu xamal élève bi que carrément que ne soo gisee ces règles c'est pas quelque chose de sale et que soo amee ay douleur tamit ñu tenir en compte que ne kii dafa am ay douleur mu empêcher ko mu ñëw jàng mais une fois bu ñëwee boo gisee ay règles ba pare qui va le mettre dans le bain de ce qui s'est déjà passé li ñu jot jàng yooyu noonu donc facteur yooyu yoon yëpp war nañ ko jëlaat ñu revoilaat ko ba nga xam ne élève bi ku ci nekk mi élève mi personne bi nga xam ne jàngiwul soo gisee ay règle daal nga am les mantuwaay yi nga xam ne dina la permettre yow sa douleur yooyu mu diminuer wu un peu. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est important c'est important euh, donc tey jii nii yéen yéen ngi kon seen phase bu njëkk ci li nga xam ne moom mooy wàllu euh, wàllub. Euh, projet sensibilisation bi ah FGS bi phase 2 bi ngeen nekk donc Mhm, donc phase 2 bi moom mooy. waaw phase 2 bi mooy euh, phase opéra bi mhm. maanaam euh, wàcc sur le terrain jeune filles yi nga xam ne forme nañ leen ci phase 1 bi ñoom ñooy descendre sur le terrain des def des activités de sensibilisation et de plaidoyer parce que boo xoolee phase 2 bi deux axes la. Mhm. communication la ak plaidoyer plaidoyer bi mooy ñuy jege autorités yi nga xam ne ñoom am nañu baat ci réew mi ou am nañu baat ci yenn euh, cibles yi nga xam ne defoon nañ ko ñu mën a am accès ci yi nga xam ne bokkoon na ci suñu cible comme par exemple. li ma la doon wax sànq am espace yi nga xam ne c'est dédié aux jeunes filles ci établissement yi am aussi accès à l'eau am aussi tamit euh, intégration la gestion de l'hygiène menstruelle ci communication globale bi donc loolu mooy phase de plaidoyer bi donc phase de communication bi nag c'est des activités de sensibilisation ay causeries ay té débat des discussions yi nga xam ne ak ay émissions yi nga xam ne dañ koy def pour que ndaw bu ko déglu dina ci mën a am des des des informations claires ci affaire gestion de l'hygiène menstruelle mm-hmm. donc peut-être nag phase 3 bi ñu songu entreprise yi pour mën a pour ñoom aussi ñu mën ñu jàppale ci euh, disponibilité kit yi nga xam ne ci biir établissement yi la mm-hmm. voilà c'est important donc Aminata donc tey jii nii ngeen nekk ci phase bi di euh, sensibiliser te yan jafe-jafe ngeen di jànkonteel est-ce que du ngeen dem parfois ci benn localité di sensibiliser euh, genre nit ñi ils sont pas trop ak genre yooyu. exactement loolu mun see ñàkk parce que à chaque fois que ne nga jug pour mener un combat tout dina am ñi nga xam ne. ils sont aptes à t'écouter jël li nga xam ne moom nga leen di jox ñu ñu def ko comme arme mais am na tout temps ñi nga xam ne dañ lay mettre des bâtons dans les roues par exemple mun nga dem pour sensibiliser des jeunes ci benn thème ñu ne damay jël exemple sexualité précoce mun nga dem ci yenn localité yi ngay def sensibilisation sur sexualité précoce mais les gens sont pas prêts à t'écouter parce que dañuy yaakaar da ngay ñëw pour yàq euh, seeni doom alors que ne c'est pas ça da ñëw pour jàppale leen pour que ñu xam seen yaram exactement li nga xam ne moo moo nekk ci seen yaram ak yan comportement lañu war a am mais par contre au niveau des établissements moom foofu moom ñu ngi jaajëfal euh, corps administratif bi parce que ils sont réceptifs parce que à chaque fois bu ñu demee pour def foofu des causeries ci wàllum thème bu mu munti doon dañuy ibbi seeni porte ils nous écoutent en même temps ils nous accompagnent dañuy accompagner ci combat boobu noonu et que élèves tamit euh, dañu intéressé wu ci thème yi ñuy def foofu noonu donc au niveau des établissements moom ñu fa benn problème macha allah donc euh, juste quelques quelques problèmes yi ñu am euh, duñ ko jël comme dañ koy jël comme solution maanaam problème xam ne jànkoon nañ ko nañ ko ci benn localité la ñuy jël transformé ko en solution nga xam ne bu demee ci beneen localité dinañ xam nan lañ war a comporté woo ba ñoom ñu accepté li leen di wax ñu jël ko sans pour autant ñu leen di vexé wala ñuy am yenn mm. gis nañ léegi sax euh, ak technologie lu jëm ci wàllu gestion menstruée ak yooyu da ngay gis léegi ay application ak yooyu yoo xam ne day jàppale xale bu jigéen bi daal ci peut-être bu naree fàtte parce Euh, peut-être ñu ñu xaw a jiitu tuuti dañ daan jël ay calendrier di marqué yooyu mais te da gis même ci téléphone yi yooyu yëpp dafay am donc je pense que yëpp ay canal pour intéresser les jeunes. exactement actuellement moom tous les euh, matuwaay yëpp am na pour que la personne soit instruit wala informé ci domaine bu mu munti doon comme ni nga ko waxee noonu suñu parents dañoo jël ay calendrier mais actuellement y a des applications sooy waaj a gis say règles wala bu fekkee demee nga ko gis. dafa am alarme buy sonné tu le programme à ce que boo ko waree gis am na alarme buy sonné pour juste dire que ne suba di nga gis say règles am na tamit application yoo xam ne ça te permet cycle cycle dina la permettre nga compter ko nga xam sa durée bi ngay gis say règles moment bi ngay fekkoon tout ça donc application yooyu nii yëpp tamit ce sont des choses yi nga xam ne day permettre nit ki mu am information si li nga xam ne moom moo koy waajali ba yenn problème yu bëri dina diminuer donc. internet bi aussi am na ci wàll bu baax a baax a baax mais tamit il faut dire que ne des fois il des fausses informations qui circulent sur le net donc tu peux utiliser ces fausses informations yooyu mu jural la leneen c'est pourquoi il est bon ñuy def euh, descendre sur le terrain comme des gens comme nous di sensibiliser tous les mauvaises informations yi nga xam ne dañ koy jot ci informations ci internet bi ñu ne leen carrément lu yëg liy baaxul comme mauvaise information des fois tu vois qu'on te dit sooy gis ses règles tu peux utiliser produit yi wala lii soo ko utiliser sa bi bi dina sedd wala tey jii soo ëmbee soo jëlee persil parfois tu le vois tu le sur net bi soo jëlee perçu yi mun nga def nii dina tax sa ëmb bi yàqu nga baal ma ci terme bi tout ça tout ça ce des fausses informations mun na indi nit ki benn problème boo xam ne du xam fan la koy waxee ëllëg donc juste dire que ne information et eh, net bi c'est bien mais c'est pas toutes les informations qui sont bonnes mm-hmm. voilà c'est important donc euh, li des ci émission bi bariwul euh, peut-être euh, ñu ñëw Lamine ci peut-être fu mu toll nii lan mooy prochaine étape bi ci da fas yéene peut-être euh, dem ci yeneen région yi wala peut-être seen représentants yi nekk foofu ñoom ñooy def le travail walla waaw euh, en ce qui concerne euh, phase yi nga xam ne moom moo tegu ci euh, phase émission yi mooy phase de sensibilisation gën a wàcc sur le terrain def link bi ak projet bi ak jeune yi aussi mm-hmm. boo xoolee tey suñu membres yi nekk ci région yi ñoom aussi dañ leen di former que ñoom aussi ñu doon relais ci seen parti parce que ñun aussi mënuñuy dem tout le temps ci région yi mm-hmm. certes des fois dinañ dem pour accompagner mais c'est pas tout le temps donc accompagnement boobu ñu woo leen ou ñu fekk ji leen former ci quelques jeunes que jeunes yooyu noonu après ñoom ñu doon relais ci seen euh, ci seen gox. Mm-hmm. donc euh, peut-être euh, ñun suñu phase phase yi des ci dakaar fii mooy phase de causerie ak terminer yeneen émission yi nga xam ne ñu ngi ko war a def pour mm-hmm. renforcer communication bi aussi renforcer plaidoyer bi à l'endroit des autorités mm-hmm. étatiques aussi. voilà donc yegg si nañ ci njeexitalu émission bi peut-être lan nga am comme information peut-être lu ñu jotuloo wax ci émission bi nga bëgg ko partager wala peut-être dernier conseil de sensibilisation ak yooyu. waaw euh, comme njeexital euh, damay damay juste remercier d' abord euh, ñi nga xam ne ñooy waa réseau PopDev ñoom ñu ma tay sas pour man ma diriger projet bi man ak samay mbokk li ci mel ni Aminata ak yeneen jeunes filles yi nga xam ne ñu ngi biir réseau PopDev di remercier aussi Maguette Thiandoum moom mi nga xam ne aussi wóolu na ma ba jox ma lii pour ma gérer ko ak waa Jigéen ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoom porté projet bi sur le plan national ak yeneen organisation yi parce que sans ñoom aussi ñun duñu am accès ci projet bii nii peut-être aussi dernier message de sensibilisation bi à l'endroit des jeunes mooy euh, ndaw da war a set ci biir comme ci biti te nekk ndaw aussi tamit taxul nga bañ am jom aussi parce que am jom day commencer ci sa ci sa bopp après mun génn ci biti donc loolu moo nekk sama dernier message de sensibilisation et que képp ku ko dégg aussi bu fekkee mën nga ñëw jàppale ñu ci combat bi aussi nga ñëw jàppale ñu si voilà ñu lay remercier bu baax Aminata euh, dernier conseil bi ngay jox euh, surtout à l'endroit des des jeunes filles yu nekk comme yow peut-être euh, pour mun leen wax daal ay kàddu yoo xam ne dina leen ñaax ci seen wàllu hygiène menstruelle ak de manière générale. waa jërëjëf Ouleye Matou comme ni ko Lamine waxee rek yaakaar naa ne tey ji gëm-gëm la rek dañoo wóoru ba tax ñu indi ñu fii nii donc euh, ñu ngi leen di jaajëfal di leen remercier bu baax a baax a baax sama message nag mooy en tant que jigéen yow set bi Lamine di wax c'est très important depuis xale ba léegi loolu la ñuy bëgg de lan la suñu parent yi dañu wax da nga war a set da nga war a set mais set boobu noonu suñu avantage parce que dinañu permettre yenn problème yi yëpp duñ ko am et xale bu jigéen na jege yaayam. na jege yaayam parce que tey jii même bu fekkee mënoo jege sa yaay jege sa mag bu jigéen parce que bu dul dara jiitu na la ci li nga xam ne moom moo lay war a dal bu fekkee dalagu la maanaam mooy euh, phase puberté bi ngay gisee sa règle donc tey jii boo jegee sa yaay wala nga jege sa mag bu jigéen dina la permettre aussi nga mun a xam ne yow boo ci tolloo yan comportement nga war a am. et aussi tamit euh, di remercier suñu góor ñi nga xam ne dañ ñoo jàppale ci combat bi parce que c'est pas quelque chose boo xam ne c'est dédié uniquement au filles non non tey jii yow xale bu góor nga war nga am les même informations ko xale bu jigéen bi parce que am nga ay sœur am nga ay rak et que ku ci nekk peut-être yow opportunité bi nga am pour am ci information yooyu moom amu ko donc tey yow sa rôle la mooy en tant que grand frère en tant que citoyen nga jàppale sax rakk bu jigéen boobu noonu ci phase boobu noonu nga xam ne moom lay war a dugg ba bu ci tolloo du am yenn problème yi nii waa juste loolu laay def di leen jaajëfal aussi di leen remercier bu baax a baax ci invitation bi voilà ñu leen di remercier aussi bu baax may fàttali ni ñu ngi doon am mbégte di dalal waa réseau population développement ñu doon waxtaanee nag lépp loo xam ne jëm na ci cet goo xam ne daal euh, jigéen ñi wax nañu ko am ci seen période mens bu ñu gis mbaax waaye tamit euh, góor ñi nga xam ne dañ leen ci war a jàppale bu ko defee kon euh, entreprise yeeg établissement yi ñoom ñëpp taxaw temm ngir jigéen ñi mën a jot ci yenn produit yoo xam ne dañ koy soxla à cette période donc loolu moo nekkoon message de sensibilisation bi nga xam ne ak plaidoyer bi waa réseau Pop Dev doon amal tey ñu am mbégte bu baax doon leen dalal Ouleymatou Diallo nekkoon ci kàddu gi euh, amoon na mbégte di leen euh, présenter seen émission SOS santé dañ leen di dig daje euh, kon vendredi prochain incha allah beneen thème ak beneen invité ci la 97.5 ci Rewmi FM.